naa njëkk wax nag ni ñuy tiime rek la ngay tiime muy suuf muy leneen da ngay jekki fab sa ñaari loxo ne ca tegg ca boobee nag nga teewlu yéene dagan loo julli mbaa leneen la nga xam ne moo la tax di tiim boobee nga tegee say loxo ca la ngay tiime teg bu njëkk ba foofu ngay teewloo yéene jë boo teggee loxo ya da jëkk raay sa kanam li ñuy wax massa kanam ba mu daj boo raayee kanam gi mu noppi nag nga tegaat say loxo ca la ñuy tiime muy suuf muy leneen daal di njëkk massa sa loxob ndeyjoor tàmbalee ca ti baaraam ya ba ca conc la ëmb ko tuuti boo noppee loxob joor nga jàll raay li ñuy wax massa loxob càmmooñ tiim moom kanam ak ñaari loxo yi rek loxo bu ci nekk day tàmbalee ca ci baaraam ya bu ëmb concee tuuti fa nga xam ne boo doon jàpp fa nga yemale raxas ba ay farataam nag juróom-ñett la bi ci jëkk mooy yéene yéene ji mooy ba nga tegee say loxo teg bu jëkk ba te loolee ngay tiime fa ngay teewloo mën a def la nga bëgg a def muy julli muy leneen bokk na ci faratay tiim nag nga defee ko ci pàkk bu laab bi ne pàkk bu laab mooy nga tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalul tiim ca li gën ci lu ñuy tiime nag mooy suuf bu aajo woon ngay pàkk mbaa dara bu dee suuf sa bu laabee rek nga xam ne amul sobe nga daal tiim rek teg ci say loxo muy ñaar teg bu jëkk ba te ngay tek sa ñaari loxo ci la ngay timé te muy bu jëk ba farata la muy ñett nga sa kanam gi ba mu daj farata la ci tim muy ma sa loxo yi ben bu ci ne la ci baram ya ba fa ngay tak montar ray fofu ray digënté bobu farata la doyam fofu sax da ngay jall ba bu la tuti waye dafa am teqale lay farata ci massa loxo yi mooy la tàmbalee cati baaraam ya ba ak sit fa ñu takk montor mbaa nga ne fa ñu takk jara juróom benneelu farata mooy li ñu wax alfawru gaaw te jubluwoon ci gaaw dañoo jublu rek sësale loo def tekki la ca topp nit ki boo tegee say loxo daal di massa sa kanam boo massaayoo sa kanam daal tegaat say loxo massa loxo yi rek dañu bañ nga teg say loxo massa sa kanam di waxtaan nag mbaa ngay faji seen soxla ba mu yàgg loolu bu ko defee mu daal di yàqu muy juróom benn juróom ñaareel mooy tiim bi na sës ci la taxoon ngay tiim di ki bu dee jullee booy tiim ba àggal rek daal di kàbbar fi saasa juróom ñetteel nag mooy la ngay tiimal na fekk waxtoom jot ba noppi nga door di tiim waaye ni nga mën ci jàpp jàpp di xaar la nga doon jàppal waxtoom jot tiim moom faaw da ngay bàyyi ba waxtoom jot maa la ngay tiimal da ngay bàyyi ba waxtoom jot nga door a tiim niki boo doon tiimal tisbaar bàyyi ba mu des ay seconde mbaa benn minute nga dal di gaaw tiim nga àggal tisbaar door jot du tax tiim boobu baax faaw da ngay bàyyi ba waxtu wa jot nga door a faslun ab dog la fii sunanihi ci ay sunaam sunanuhu sunaam ya talaasu ñett la ak tartiibu moo di toftale ga tajdiidu ko ak sag yeesal ak darbata dóorin ba yaa labiibu yow aji xellu wax yow moom dóorinu ñaareel boobu li lee day ñeel na yaari loxo ya tumma masxuma topp masa nga xam ne zaada dolliku na xalal ku xay ni ci ñaari tikku jara ya tiim ñetti sunna rekk la am ba ci jëkk mooy yeesal tegub loxo yi da ngay jëkk a teg say loxo ca la ngay tiime muy farata nga masaa ci kanam nga nga tegaat nag say loxo ca la ngay tiime tegub ñaareel masaa ci loxo yi nag teg boobu sunna la ba tey li tàmbalee fa ñu montar nga masaa ko bu ëmb conca la tuuti sunna la ndax bu dee ci tiim moom lay farata mooy masaala tàmbalee ca ti baaraam ya ba ak ci fa ñu takk montar muy ñaar ñetteel ba nag mooy toftale tiim bi toftale mooy jëkk masaa kanam door a masaa yaari loxo yi ndax tiim moom weesuwul kanam ak yaari loxo yi daa bàyyil tayam mu man tiim mustaxniyan ngay aji doyloo an hu wëlis ko bi tuxuril maa yi ci laabug ndox in kunta dem nekk nga da sixati di boroomu wér laa zaddaay waxunu boo dee boroom jàngoro aw kunta wala nga nekk daamaa in di boroomum ndox bi xudurin ànd ngànt fatturaa kon suuf xiina isin ci waxtu woowee xalafa foo mooy wóotaatu ndox faa ina nga wattu as sawaaba jub ga mu ne tiim nag moom du loo xam ne dalay neex rek nga def ko ngante koy waral su fekkee ne da nga wéré di wéré di go xam xam nga ci sa bop ne bo jëfëndiko ndox mi rek sa tawat gëna yokku ba mbaa mu gën a yéex sax amna tawat jo xam dal na woon ci sa yo jëfëndiko ndox rek mu dal lay dal ben nga xam ko ci sa bop ba dal ku xam-xam fajj mo la ko wax wala am nga ndox man nga ko jëfëndiko waye ndox ma boko ko da nga mar te do am lo naan wala am nga ndox man nga ko jëfëndiko waye waxtu wa da xat ba nga xamé ni bo fa nekkon di japp ba ngay sangu farata waxtu dal di jall te do ci am sax abrak yoy yep kon sa farata moy tim da ngay dal di tim rek te tim ba day dal di wecci japp tax da nga ci am digal defo ko rek ngir bëgg lu la noppal ba lu la neex tim bi nga xamné mo ay dal da wax ci aljawharu nafis ne ku ko def dañ ko cay fayee sawara mooy tiim boo xam ne amutoon ngànt bëggul ko noppal ak bëggul ko neex rek moo tax mu def ko ci la waxe woon ne laysa lahu bi dalika tayammumi yawmal qiyaamati siwa jahannami ñu jàpp foofu ne suñ la diggalee tiim nag ne la tiimal julli nga ne nag man jàpp daal laay def ndax dawuma tim far waxtu wara wala bu amo ci rakk sax ci ba ngay jema japp ba ba ngay jema sangu farata kon da nga ci am bàkkaar say nek del xol lañ la diggal rek nga def lola faslu li ab dog la fi siyam ci koor sunu koor batan yaari farata bila siyadatin ci ludul ak doli wala nuqsaanin du caageenu ak wañi man nga ne it bila siyaadatin ci lu dul ndolleen wala nuqsaani du caageenu wàññeen lii yëtu naa mooy sunu yéene wa kaffu naa ak sunu fegu xan muftiraatin walis way dokkoor li wajji baaxin ngir jëmmi aji des mopp ximin kuy aji lele bet tayyi baati ci way teey ya koor moom ci gàttal ñaari farata dong la am ëpp ko yéesu ko benn bi mooy yéene dogu ci woor yéene jooju nak ci guddi lañ koy def bu ñu guddi nag mooy fi jant bi soye digganteem ak fajar di fenk su fekkee ne koor gi nga nar a woor ci sa coobar rek la du farata ci guddi ngay nattawli naa danaa wooram duma woor suba dana tàngam du tàng ba fajar fenk jeex na mën laa jàppati koor ga bu dee ci ni ko yoonu malik gisee bu doon nag kooruk farata mom ci guddi gi xamoo ci won dara ne weeri fenn wala feeñut ba bët setee nag nga door xam ne weeri feñon na kon xam nga yéene ji raw na la da ngay japp bis bobé baña lek baña bañ a naan du nga fay bis bobu bu dé ci weeru koor it bo bayé ba ci bëccëg bi nga door a ne weer feñon na bi gi ngay dal di bàyyi lek ak naan ndax ormal koor gi ndax ormal weeru ramadaan wi daru ten nga fay bis boba gannaaw yéene ji nak farata ñaarel bi moy lepp lu ñu ne luy dog koor la nga daal dikoy bayyi bañ ko def bañ ko la tambalé ci fa fajal fenké bu jant bi sox ni ki ak naan ak tux wala jotté goor ak jigéen ak lepp lu ñu dal lu luy koor la rek la tambalé fenku fajar bu jant bi sox nga bayyi lool lepp bañ ca def dara te yalla rek tax yalla mi nga xamni du jeex mukk te ku taxaw ci jëfe ndigalam bayyi terem bu ëllëgé mu fayé la lu sédd sa xol ki nga won lek ak naan di maraka xiif ëllëg mu fayé la xéeti banex yëgëna ya gën yëgëna ya neex fofé ca kër ga amul morom muy ajana mas nulu lañu lañu sunnaalam talaasatu ñett la xindal labibi fa aji xellu ja taajilu naa mooy sunu gaawe al futtoora dog min baadil xoroo bi ci gannaaw soxog jant wattaani ñaareel bi taqiiru suxóor yi mooy yéexi xëdd lay leen ci guddi taalisuha aj ñetteel seen kafful lisaani mooy fekk làmmiñ wa xawlan ci wax koor am na yetti sunna ci jëkk mooy xëdd xëdd bu guddi gi xaajee rek waxtu xëdd dugg na lañ ci gën a taamu nag mooy nga def ko te yeexee ko ba nga xamee ne boo xëddee ba noppi sa digganteeg ñu noddu salaatu juróom-ñetti minute mbaa fukki minute rek mbaa fukk juróom moo fay des ñaareel ba mooy gaaw a dog bu la wóoree jant bi sona nattableetoo ko nga daal di gaaw batay lolu sunna la la gën ci dogga nak moy nga mos tandarma ba leneen lu neex su amut tandarma amoo lu neex nga daldi gox gox ndox daldi di gaaw julli timis door delu ci aade wala fi nga xamne moy nan ka feeg yu ko nuru ndax dañuy bañ nga yag ca fa nga don doge ba muxtarum timis raw la ngay da ngay dog rek dog bu gaaw boo xam dog na koor gi taxaw temb ci julli timis nag boo noppee mën a yaar ci sa bopp lu aju ci la nga bëgg a xéewloo booy nattable nag jant bi sona walla soowut wala ci guddi gi ngay nattable xëdd wees naam weesut bu dee dog bul dog bu dee xëdd bul xëdd soo dëgëree bopp nag dog te xamu woon jant bi sonaam soowut da nga doon nattable rek bo ci amatu lu wor faaw nga fay bis bobu lu woré ci gannaaw ba nak né ba ngay dok fekkon na jant ba so kon baxna xad gay non la boy natab li xad wess na wessu dina la bul xad nga deugal bop dal di xad bu fekke non rek nga wéy ci sikki sak ga amato ci lu wor da nga fay bis bobu bo ci amaté lu wor ni bobu nak fajar fenk guton kon baxna sunna ñettel bi nak moy bo woré nga téy sa bañ ci wax jenn wax ju amul tiyaba ndax wax joo xam ne dañ koo araamaloon mbaa ñu siboon ko moom bu dee yi ramadan sib ga ak aramal ga day gën a tiis gën a rëy ci ku ko def waaye jëpp wax joo xam ne boo ko waxee doo ci am bakkaar waaye nag doo ci am itam tuyaaba boo wooree nga bàyyi ko bañ ko wax moo gën tey wax rek wax ju am tuyaaba mbaa nga noppi ñett yooyu ñooy sunna yi koor faslun li ab dog la zakaati ci asaka amma zakaatu daal asaka fal faraidu farata ya laxaa ñeel ko doxal du def na leen lim arbaxan mbir mu ñuy ñeent faraaxi nga sàmmoonte ku laxaa képp ci ñoom asaka am na yeenti farata kul waxal ne niyatun mooy yéene tamaamu xawlin ak matuk at wa tamamu nisabiha ak matuk nisabam ja hadamu naqlin akuk ñaka toxal zali tamamun ak mat la farata bi jëk ci asaka moy yene ndax jëf mën ta ñak yene lolé ngay joxé mom nga yene bu yalla sant ci joxe asaka bu fekkee ne nag ku la bettoon ne la li ngay lim doon nga ne ko asaka laay joxe jooju yéene dal nay doy waaye nag boo joxoon kenn dara gannaaw ba nga seetaat ci sa xel ne moom kat ku loru la yelloo naa lekk asaka te asaka waroon na la nga bëgg wax ne kon laa ko joxoon naa ko féetale ci asaka ji rek benn yoon mu wàcc ma kon du doy ndax ba nga koy jox jubluwoo ci woon muy asaka bokk na ci faratay asaka bu dee wurus mbaa xaalis wala jur xar bay nag na at momat nga doora génne asaka ji li fekk at asaka waragula faaw at ma day mat ba noppi asaka door la ca war nga do ko génne farata ñetteel tel moy momat ñu saabu len lu nek da am tollu way bo xamne bu ci agut asaka du la ca wax bo ci agul dal di génne asaka nak boo ca àggee ca tolluwaay boobu itam asaka war la ndax ba nga koy génne waragula woon mel ne bu dee ci xaalis dañuy wax ñaari téeméeri dërëm yoon ñaari téeméeri dërëm yoon nag boo ko dee seet ci xaalis su CFA faaw li ci ëpp day ëpp fanweeri junni bokkut ak ñaar téeméer yi nga xam ne moom nga miin bu dee sa alali bopp nag man ngaa topp rek ñaar téeméer yi ñaar téeméer bu ne nga génne ca juróomi dërëm donte sax amoo lu mat fanweeri junni waaye nag bu dee alal dindi dénk moom niki alal jirim faaw nga bàyyi ba mat nisaab ji yoon wax nga caa génne asaka doo ca sañu génne asaka te matul lim boobu saa yoo bëggee xam nag xaalis seefaa nu ca nisaab tollu ca bis boobee nga tollu da ngay seet ñaari téeméer dërëm ba dee ci yoon nu muy ci ay ngaraam muy 695 gram, 695 gram ci xaalis bi nga xamni mom la tëgg bi xelli di ko ay jaaroog yenen takay mo tolok ñaar téeméer dërëm yoon bo laaje nak tëgg ba ben gram bu ne ci bis boobee lu muy jar ci xaalisu sefa bu wax la ko 695 gram boko multiplier ca lolé num la jox rek ci bis bobé moy doon nisabi khalis ci CFA ba nga yoré ci misal bo joon teug ba ben ngaram ci khalis bu sel bobu tay fu njëg gi toll mu ne la ni nga toll ci 280 kon lañ ne moy ñaar téeméer gram yoon té moy 595 moom ngay multiplier deux cent quatre-vingts mu daal lay jox cent soixante-six mille six cent cent soixante-six mille six cent kon ca bis boobee moo doon nisaa bi xaalisu CFA nga xam ne ku amul lu toll noonu asaka du ko war bu dee alali boppam nag bu ko neexee su matul loolu yëpp mu daal di génn rek asaka boo xasee xam nag ne li nga am ci xaalis mat na nisaa ba asaka war na ci soo koy génne la ci gën a gaaw mooy nga diviser ko 40 maanaam nga séddale ko ñeen fukki xaaj boo ko defee ñeen fukki xaaj rek benn xaaj bi mooy tolloog sa asaka mel ne tey million boo ko yoroon boo ko divisé 40 maanaam boo ko defee ñeen fukki xaaj benn xaaj ba juróomi junni lay doon te juróomi junni mooy asakay million mook nga jàpp ne asakay xaalis kaaru fukkeel lay doon te buñ ne kaaru fukkeel mooy loola nga def ko fukki xaaj benn xaaj boobee nga defaat ko ñeenti xaaj boo ko defoon nit ñoo yemoo rek ndax million boo ko doon séddale fukki nit kenn ku ne ñaar fukki junni lay téye te ñaar fukki junni boo ko defaatee ñeenti xaaj benn xaaj ba juróomi junni lay doon kon jàppal ne booy génne asakay xaalis mbaa wurus la gën a gaaw mooy nga divisé ko 40 lu génn rek mooy tolloog sa asaka ñàkk toxal geemu wax nag muy ñeenteelu farata yi mooy fa alal ja nekk nga di ci génne asaka su fekkee bu fa yelloo asaka nekk na fa bul ko fa toxali di ko yóbbu feneen foo xam ne sori na soriwaay bopp 72 kilomètres lu may nag fi nga nekk am na ñu yelloo asaka waaye nag dafa am béréb boo xam ne ñoo gën a loru ci asaka ji kon na ngay joxe lenn li fi nga nekk la ci ëpp na nga yóbbu ko ci ñu mel ni ngay liggéey ci bitim réew gis ne foofa am na fa ñu yelloo asaka waaye fii nga bàyyi ko ci Sénégal ñoo gën a loru ci asaka ji kon na ngay joxe lenn la foofa ndax foofa la ware la ci ëpp na nga yónnee si ko fii xeetu mbay nag nit ki bay dugub mbaa leneen bala ca asaka war day mat juroom benni barigo am na sax tolloola yoo xam ne boo ko toppee dana ëpp juróom benni barigo waaye daal mel na ne mënees naa jàpp juróom benni barigo muy nisaab ci mbay nga xam ne lam bay su matee juróom benni barigo asaka war ca su matut asaka du ko war mbay nag bu fekkee ne asamaan si mooy taw rek muy bay bu xasee am lu mat juróom benn bërigu mbaa mopp ko bu ko defee fukki xaaj benn ba lay joxe asaka te juróom ñeent ya su fekkee ne nag mooy suuxatal boppam la muy bay wala machine ay suuxat muy fay nag machine ba kon day joxe genn wàllu fukkeel mel ne su fekkee ne lam bay daa doon ton te asamaan ay suuxat kon fukki bërigo yi benn ba lay joxe asaka su fekkee ne moom mooy suuxat nag mbaa machine mooy suuxat muy fay kon genn wàllu barigo lay joxe asaka lu mel ni nag xar ak bëy ak nag ay gëléem dañoo am ay teqale yoo xam ne neexuta gàttal waaye nag ku ko soxla mën naa jël téere yi nga xam ne jàngale nañ ko ca te muy téere yu bare bari ba ci gën a gàtt mel ne ne mooy ibnu hashir waaye boo demee ci ar-risaala ak al-hisiya ak téere yu bare bari itam andi nañ ko su ma xadd zakaroo topp tudd nañu la xaañeel asaka aadaaban ay teggiin salaasat yu di yett to xas silwee danañu amal ak sawaaba yool ba waxee ñoom tayibu nafsi mooy tey bakkan maanaam sedd xol rek fii xaa ci asaka ja su ma antakoona topp mu nekk min wasati maalin di bàyyi ko ci tànneefu alal wasap day firi aw tànneef mel ne nga wax ko aw tànneef foofu moo gën a neex a xam ci diggu doomu rek xay suxaan na foofu xam ne gaar na taali suxaa aj ñetteel seen astatu mooy suturaal ga maanaam làq ga anil oyooni walis bëti nit ña xaw far riyaa ngir ragal ngistal al mufdi kay aji àggale li ay bi diini jëm ci sikkal diine wala sikkus diine asaka waxaluñ ko ay sunna dañ koo waxal ay teggiin asaka am na yetti teggin yoo xam ne soo koy joxee sàmmoonteeg teggin yooyu dana tax sa tuyaaba gën a bari ba ci jëkk mooy sa xol sedd ca bu sa xol tàng ci lii de maa ngi koy joxe waaye su ma ko ci bàyyi woon mën naa faj soxla sàngam mbaa nangam ak nangam ngay jàpp ne yàlla mi la jox lii seet lu tuuti ne la joxal ma ko kee nga xam ne maa ko xañ ci saa coobare te yow mi mënoon naa laa xañ na ma ko xañee yow nag jox naa la ba ne la joxel ma ci lii rek muy lu tuutee tuuti loolu na ci sa xol sedd yow mi koy génne waaye du ci am daray xol bu tàng ñaareel ba mooy su fekkee ne alal ja dafa def ay qualité am bu yamaay am bu diggu doomu am bu nekk aw tànneef kon lañ gën a taamu lay teggiin mooy nga seet ba ca gën a baax di tànnee wa nga génn ci asaka ja wóorul la nag teggin rek la su nga koo génne sax ci qualité ba gën a yemaay waaye am nga sañ-sañu la diggu doomu nga xam ne gënta baax gën gënta yemaay nga génn ci asaka ja te téye la gën a baax waaye lay teggin nag mooy nga génne asaka ja ca la gën a baax ngir sàkku tuyaaba wala teggin la ñetteelu teggin mooy soo génne asaka ji ba di ko joxe kenn bañ koo gis baa boog nga jox ko keneen mu joxeel la bu fekkee ragal nga ne danga ca bëgg ku la ca tagg mbaa dara nde sax asaka moom joxe ga day farata su fekkee ne boo koy joxe ñu lay séen du tax nga gis ci sa bop du tax nga bëgg ci aw tagg mbaa dara kon nga fessel ko bokoy joxe mo gën ndax ku fàtte woon fàttaliku ku ton ci joxe asaka itam nga soññ ko mu sawar ba joxe na yow gene asaka nak bari na ñukoy def sax waye jox ko ka koy yello moy xawa jafé motax kon ko xamné xamut ñu yello asaka dal da ko gëna noppal mooy mu fekk koo xam ne am na xam ak mu maandu mu ne ko lii sama asaka joxeel ma ko mu joxeel ko ko daal moo gën dal am xel faslu ngi ab dog fil xajji ci acc idul xajji faratay acc arbahun ñeent la la dayhim fa ñoom fal ula bu jëkk ba an niyatu mooy yéene xalaama ci kaw li nga xam يشرع ديف نكو يونال ثم عبد توب نغا ليم الطواف ورغ للإفاضة نيال إفاضة ثانية مري أب نيارل لها نيال ييني بغير فنا دين تي لودول فن وسعينا سنب دوخ بين الصفا ديغنتي صفا والمروة أك مروة ثالثة المعدود موي نيتيلو لا نيو ليم دون مريتين تي لودول ورانتي su ma lu xoofu topp taxaw ga bi xarafata ci xarafa istami déglul lii ñeel ma istami lii da ko fee jaarale rabihatul arbax yi mooy aji ñeenteel ñeenti ña ku nekkal daa maarifatin di boroomu xam aj màkka am na yeenti farata nga xam ne bu ci ñàkk rek aj amut ba ci jëkk mooy yéene te ndi ko tudde armal yéene jooju ñu koy tuddi armal farata la ci aj ñaareel bi mooy wër kaaba ga ñu tuddee tawaaful ifaada dafa am wër boo xam ne dañ koy tuddi tawaaful qudum wërub nuyoo kuy doon ak si màkka wër ga muy wër bokkut ak ifaada mooy farata waaye tawaaful qudum moom warugar la woo xam ne soo ko bàyyee tour dere rek mu daal di koy wecci tawaafu ifada li ci ep mom ci bisu fukel bi nu koy tuddee fi bisu tobaski ci lañ koy ëpp def waye mom nak li fay defo ko rek do yewi ko ñettelu farata yi moy dox safa ak marwa dox ak marwa moy ñettelu farata yi ñentel bi nak moy taxaw arafa ci bopam taxaw arafa dafa reuy lol ci aj waxtu ko wara defé muy guddi gën ko wara defé bu fekké defo ko ci bam raw la aj raw na la ci at moma ba deewen nga ñew fay ci ko motax mu reuy lol ci aj ba hadis bi ne al hajju arafatu faslu li ab dog la fi sunanihi ci ay sunam bu ñew ci sunay aj sunanu ho sunam ya baun balé don, doon misri firi ñaar ci araf abajada ata bob dik na mu bir mbir muy luñu wétal manam di ben tomb rek min ba'di di en ci gannaaw ya tahtu ci suuf la fawqu du agenu ci kaw ur sudan na nga jup sunay lay aj dafa bëgg wax ni fukk ak ñaar da ngay bind yabun ya di firi fukk wa tax mu ni ñaar tomb ci suuf bul def ñaar tomb ci kaw ndax boo ñaar tomb ci kaw muy ta' day doon ñeenti téeméer ngay def yaa ñaar tomb ci suuf teg ci benn tomb muy baa moom itam ci suuf muy yabun fukk ak ñaar noonu la suñuy aji toll ci nim ko wañee waaye nag suñuy aj moom léeg-léeg mën naa jaxas sam xel ndax dañuy wax nangam sunna la te fekk na waru gar la woo xam ne soo ko bàyyee aj du yàqu waaye am na alamaan buñ lay fa arbahun ñeent min ci ñoom yaf xaluhaa dana leen def man ka nga xamee ne xajja aj na bi ixtiraamin ànd ak ormaal la dal ihraam fa armal ga xuslun te mooy cangaay yàkkoonu loolu dana nekk muttasilan di aju jokk bi ihraamin ci armal te jarudun ak summiku àndil max yi walis lépp lu ñu ñaw fam tasil na topp ndigal illaa bi lubsi yi ndara ci ak solom isaaran teraxlaay warida akuk lambaay misluhuma seenum kem la naalaani ñaari dàll raafiq na nga àndaaleeg man ka nga xam ne xada jubal na wala jub na raabixatul arbaxi aji ñeenteel yeent ya hindal xaw fii fa al imaamul xaw fii radiya yàlla na doollee gërëm an walis ko man yàlla mi nga xam ne anaara leeral na jaw fii sama xol talbiyatun moo di wax labbayka jaalibatun bu di aji ñoddee lil ajri jëm ci ab yool fii sunnati lu musharrafa ci sunnas ka ñu nangu am ci moom alma barri kay aji baax alayhi yàlla na nekk ci moom afdalu salaati ngën ci dolli teral wasalaami ak dolli wóolu fii aalihi ci ñoñam wa saxaab yi ak ay saxaabaam alxurri ña di ay sang alkiraami ña di way tedd bu ne sunuy aj fukk la ak ñaar da koy def ñetti xaaj ñeent beru fee ñeent beru fee ñeenti beru fe ñeent yu jëk la wax ne ñi nga aju ci armal bo yene di dugg ci aggi yeen yenn yi fofu lañu aju ba ci jëk moy bala nga armal nga sangu ca ngaay lool na ñu sango farat rek ñoo bok aw melo ca ngaay lool nak da war sus ci armal gi bo sango bu nopi rek dal julli ñaar rak da nga waxtu dagan te ñaar rak nya dal dogu ci dugg ci aj ga cangaay loolu nga xam ne di sus ci armal ga mbaa nga ne armal ga li sus ci moom sunna la